ñu fal ko parce que daf ñu ne jomaay mooy Sonko. ba tax na valeur yi nga xamante ne moom la ñu gis ci ci Sonko ñu war ko mën a gis ci jomaay pour tey bu ñu faloo tey ñu réparer injustice bi non seulement waaye faire gokki alal gi nga xamante ni tey jii euh, suñu ay autorité dañ koo jël man loolu laa doon expliquer j'ai un problème en man su may wax ci ñooñu. Mm-hmm. man damay gaañ. Mm-hmm. problème boobu laa am. parce que man mënu ma comprendre man nit koo xamante ni yow. bul gaañu bul gaañu bul gaañu bul gaañu bul gaañu tey. non parce que ce qui se passe dans ce pays dafa doy waar. Mhm. man fa tere bee may liggéeyee ñoom tam ay naandite lañu dinañ ma dinañ ma firi 4 heures du matin laa yeewu. 4 mhm. heures du matin dina ma fekk ci tali bi. Mhm. mais damay dajan damay daje grand mère pa mu yee mu mu leer la li ñii lenn rek moo leen tax a jóg mooy ut dépense. loo xamante ne dinañ ko jox seen kër dañuy xëy di ko lijjanti ji. Mm-hmm. yow alal googu yépp ñu jox la ko. pour nga xool ñii nan la ñuy def ba am liggéey nan la ñuy def ba am un toit as fukk soo xamante ni bu ñu liggéeyee ba wàcc dinañ fa mën a teg seen bopp noppalu nga boole lépp ne tungaam lekk mm-hmm. mais 4100 mètres carrés. naka la ko nit di di amee. mais est-ce que promoteur bi yab bu toll nii. la <laughs> c'est-à-dire à usage d'habitation ma loolu laa mënul. lan mooy à usage 4100 mètres carrés. loolu loolu lañ ko joxee. joxuñu ko ko pour mu tabax ci entreprise wala quoi que ce soit de pour mu dëkk ci. n'importe quoi. ah tu te rends compte avec ça soo koy wax ñu ne da koy wax ci njëkk. lan la ñuy wax si njëkk duñu ko wax si njëkk da nga koy yuuxu. àll ko yuuxu. parce que ay jamono lii nii da ko doon xam xëy na sama genre gi moom ñoom ñoom moom moom toog seen kër tëdd camp naa la jàmmale woon. parce que nag dañu koo jaraloon. dañu koo jaraloon. donc en pendant cette période jamono ji je dirais pas pendant cette période jamono ji ñu toll. Salma dee ma xool booy wax dee ma xool waa kay waaw il ma lay xool pour yow. damay jox sa onde yi parce que man dama mënul comprendre ce qui se passe dans ce pays. ay prédateurs fonciers bandits fonciers bu ñu koy wax ci wolof mooy wëyu. wëyu yoo xamante ni muucu nañu suñu deret. dëggate nañ ñu jeexal nañ ñu ba ñu jeex mm-hmm. tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk te ñoom tey jii maman mm-hmm. il se permettre nekk si internet bi mm-hmm. wala di àbb micro di expliquer ay 100 jours lu ngeen fi def waaye ñoom ñoo ñu wax ñoom ñii luñ fi def. mais mais mais mais est-ce que xam nga li gën a garaaw. Euh, pour wax la rek exemple. loo xamante ni daf dañu yàgg muur quoi. xam nga su Sonko doon système système gars yi naan waa yow mi système c'est juste. un dispositif mis en place orchestré pour détourner pour voler pour sucer le peuple regarde demal Sud Foire maanaam da ngay jàdd ci koñ mbëkkanteeg nit amul assainissement amul urbanisation parce que sama maam bi ma bëgg trop Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci nguuram foire bi espace bi nekkoon ci foire bi yëpp wekki nañ ko yëpp lañ daggate li may wax ni ñu dëkk zone de captage xam nañ li may wax parce que zone de captage xur la. Mhm. mu ngi nekkee côté cité des eaux. <coughs> temps Abdou Diouf dañ ko bàyyi noonu parce que moo doon capter ndox yi moo tax ñu naan zone de captage donc ndoxu taw yi doon ruisselé jóge parcelle Grand Médine Grand Yoff yëpp fa la doon daje. Mhm. ñu ñëw daggate ko. Mhm. def ko ay kër. looloo waral yeneen secteurs yi. di refoulé di taa voilà. je pense que mën nañu rester toujours ci sillage boobu parce qu'on tout à l'heure de <coughs> déclaration de patrimoine tout à fait tey déclaration de patrimoine boobu man bi ma gisee euh, bu son excellence euh, le président Bassirou Diomaye Faye tu sais que j'ai fait dem lijjanti ñi déclaration de patrimoine bu Macky Sall <laughs> il faut ñu koy topp ah il le faut. Oh, lii mooy lii mënta ñàkk. ok comparaison boo ko defee da ngay nañ ko de comparaison laay def man tey. comme comme comme président France ngay wax ak président. en 2012 bien immobilier bu Macky Sall njëkkee. est ko fi émission bi. du ñu jeex parce que liste la mais dama siy wax quelque rek yoo xam ne moo ko waxee di ngeen gaañ. yi gën a faar déjà waaye yi gën a faar. Mhm. amoon na déjà benn villa en nature bu benn terrain boo xamante ni tabax nañ ko ba noppi. Mhm. nekkee woon à Dakar ci ci Patte d'Oie boobu nee na mi ngi ko dikkee woon à 12 millions de francs CFA li may wax nii c'était en 2012 ci déclaration de patrimoine bu Macky Sall waaye nee na villa bii ne nekkee woon ci Patte d'Oie ngi ko am le 5 octobre 2001 2001 la am villa bu ñu toll maanaam après l'accession au pouvoir de maître Abdoulaye Wade euh, donc ku mu ne villa boobu noonu jamono jooju noonu en 2012 ñu ngi ko évaluer bi ñu ko évaluer ba noppi mi ngi dikkee bi ñu ko tabaxee ba pare à deux cent cinquante millions de francs CFA nekkee ci Patte d'Oie euh, beneen bi ci topp tey jii benn villa boo xamante ni euh, mi ngi nekkee ci ñàgg mi ngi ko dikkee woon à douze millions de francs CFA euh, président Macky Sall en 2012 amoon na benn dë appartement bu nekkoon à Houston Houston laa wax de à États-Unis en 2012 alors qu'il n'était pas encore président de la République bokkoon na ci ay moomeelam nan la def ba am loolu <laughs> en 2012. nan woo Idrissa Seck mu wax nan la def ba am loolu <laughs> beneen villa boo xamante ni tey jii mi ngi toll ci une villa de 2000 mètres carrés mhm. nekkee ca Saly Portugal en face hôtel Teranga mu ngi ko bi ñu ko estimé mi ngi tolloon ci 2000. deux mille dafa deux cinquante millions de francs CFA li may wax en deux mille douze la. waxuma deux mille vingt quatre. yaa ngi deux mille douze ba tey. maa ngi deux mille douze ba tey. beneen villa boo xamante ni. trente cinq oto. Mm-hmm. yow waay. trente cinq oto bi ñu ko laajee xam nga lan la wax. Mm-hmm. sama pour cent parti politique la. Mm-hmm. maanaam nee na moom moo ko moom. waaye pour politique la. d'accord bokkut ak compte bancaire yi nga xamante ni tey moom la déclaré woon yéen ñi nekk ci Sénégal yeneen yi nekk à l'étranger. en 2012 laa wax li yëpp Macky Sall. c'est-à-dire man ñun aussi est-ce que tamit tooñ ñu suñu bopp. parce que nit gu gu def déclaration de patrimoine gu ni toll. nekkagoo woon président de la république on sait que Macky Sall ngi commencé liggéey en 1999. ñun ñëpp dañuy fàttaliku tey adage bi nga xamante ni Farba Ngom je pense moo koy expliqué bi mu àndee euh, soxla si Marième Faye Sall mu ko naan doo wutal sama jëkkër liggéey naka la mën a. Euh, dajalee alal gu ñu toll jamono jooju yëpp alors qu'il n'était pas encore président de la république man yaakaar naa ni bi mu defee déclaration de patrimoine woon si lañ waroon a ubbi suñuy bët ndaxte loolu nga xamante ne moo nekkoon moomeelam yamoowul ak am-amam wala liggéey gi nga xamante ne tey mu ngi ko doon liggéey di ñàkk ñu mën a wax ni lii da koo liggéey pour mën koo am. parce que fonctionnaire d'état parce lan fonctionnaire d'état nga. Mm-hmm. am nga xëy na yenn euh, euh, liggéey yoo jot a def. Mm-hmm. mais c'était en 2012 mën nañ ne après bi bi mu defee déclaration de patrimoine am mm-hmm. lan la ko may lan bi ñu ko laajee lan la wax Ablaye Wade moo moom ko moom ma ko may. Ablaye Wade li mu ko tontu ñun ci teggin mm-hmm. sañu toog fii di ko expliquer suñu internaute et je pense qu'ils vont se souvenir. Mm-hmm. ils vont se souvenir léegi man li tax sax ma dem uti waa déclaration de patrimoine bu Macky Sall c'était pour comparer ko ak bi nga xamante ni moo di suñu président bi lee di le président ba Bassirou Diomaye Faye parce que man dama ne ñun suñu président bi daa bëgg bor wala nii la war a demee wala moom da doon liggéey du du du du du du xaw ma je sais pas comment il faisait en tout cas parce que tey bu ñu xoolee ci li nga xamante ne moo di bien non bâti bi comme Cheikh mu ngi ko doon wax tout am na benn terrain boo xamante ni tey mi ngi nekk Njagañaaw mu ngi ko jëndee woon nee na à 3 millions de francs CFA en 2017 en 2017. beneen terrain agricole maanaam benn suuf soo xamante ne pour bàyyi la woon toll ci 4 virgule 3 hectares mi ngi nekkee ci Sandiara mu ngi ko jëndee woon à 15 millions euh, 50 mille francs CFA en 2022. 2022 beneen terrain bi benn terrain nu la bu deux mètres carré nekkee Kër Moussa boobu benn bàyyi la boo xamante ne amoon na ko en mille 2009 dikkee ko woon à 1 million 700 mille lii moo nekk bien wu le président Bassirou c'est ça euh, lii moo nekk bien wam léegi moment maanaam man bu président Macky Sall dama doon lim mais mënumaa lim lépp parce que xam nañ ni fii une heure trente lañ fiy def émission. c'est ça te bu ma ko doon lim duñ fi jógee. Uh-huh. léegi looloo tax tey ma andi bu président Macky Sall ak bu président Bassirou Diomaye Faye bu ko defee sénégalais dinañ mën a def la comparaison. Uh-huh. c'est un président endetté pourquoi lan moo tax mu endetté wu da doon liggéey pour mën a ñàkk jariñu honnêtement. président bu dugg rek dafa dugg rek. ah da koy jug di ko lijjanti ji. damay ko mën a ko guleet ma gis président de la république bu endetté wu. endetté oui <laughs> mu ngoog.